Euh, damay faral di ñëw ci dara lii di jaay ko juste nekk mère de famille rek di bëgg daan doole daal. buum yi 500 500 lay jar. Liberté cinq bi rek laay faral di ñëw quoi fi lay ñëw di fi dóor waar di sama buum yi di ko jaay sama gars yi ñu yor xari di dóor waar quoi. Hmm. ah dóor waar rek parce que liggéey moom boo ko ak dara liggéey moom euh, euh, liggéeyu tànk moo gën liggéeyu leneen surtout boo nekkee jigéen ngay war di dóor waar dara. parce que lii lépp début la quoi non nek soutien de famille nek mère de famille loolu moko waral quoi parce que Dóor waar bokk man lepp lay def Lepp lay def damay agent commercial damay def lu ne mais lu ñew nak ak période am période buum lañ nek maanaam xar yi moo ñu ñew ci meedu lenen. ah ñu japp ci job bi quoi parce que ñu xam ne ñi da ngay jàng ba son do liggéey xam nga loolu dafa metti hmm. loolu la quoi <laughs> dañoo jàng ba sonn amuñu benn liggéey te fi kenn dimbaleetul kenn barke Serigne Touba kenn dimbaliwul kenn loolu moo tax bañ a bañ a def lu ñaaw rek kenn di moo tax ba bëgguma woon wax quoi parce que xam naa su ma xëy damay jooy parce que gis ñu la war a dimbali kenn du la dimbali kenn du la dimbali dañ lay seetaan di la xool nga jàng ba sonn mais nag bañ a sàcc rek bañ a sàcc rek ak bañ a moy moo tax bëgguma woon wax quoi maa ngi jéggalu bu ba